Ahmed Sy du nuy aussi waa kër soxna Sefietou Sy du nuy képp nga xamante ne instant bi nii yaa ngi ndar euh, surtout waa Bayal te njigéen maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen sargal di leen jox seen wàccuwaay di jéggalu nag ci retard bi nga xamante ne seen émission jamonoy tey am na ko tey xam nga rek en embouteillage yi des fois moom mooy téye nit ñi moom mooy tax euh, yenn euh, retard yi di am ba na rek ma gaawal ko vite fait Chérif Cissé maa ngi lay nuyu bu baax a baax. awuzu billaahi min sheytaan rajim ah, moom tardé moom lool loolu du si dara. <laughs> comme ñëw nañ ci jamm ak salam rek ci mëna eh. waxtaan ñu waxtaan ko ñu mm-hmm. lay fay nuyo mm-hmm. euh, soxna ayda sal euh, bu sëñ Babacar si nga xamni lu ñuy faral di wax rek nuyo sunna la fay nuyo farata la mm-hmm. ñu ngi nuyu sun téléspectateurs yi nga xam ñoy safo du sétane sen télévision Malikia TV si leeru mawdo si sen émission jamono tay bu and ak sa su ne jamono dañ koy di diine sa su ne ñu ngi nuyu sun gan yi nga xamni yow yaa leen dalal bis inshallah bu nuyu sun téléspectateurs yi nga xamni ñoy Eh, ñoo ñuy xo eh, teewlu. Mhm. Eh, du leen ñaanal jàmm du sàkk ñoom ñaan. du ñaan yàlla ubbi suñu xol leeral suñu xel. jubal suñu làmmiñ ba lépp lu luñ fiy waxtaanee tey mu nekk njëriñ su askan bu nuy teewlu incha allah rabi. jërëjëf Chérif ñu ngi lay jaajëfal bu baax yaa Seyda maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay soxna Aïda macha allah sant yàlla rek. Euh, moom euh, ku dul may sa bopp loo am rek jëlal macha allahu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ممكن جولي نيي سيتان في سن تلفزيون مالكيا تي في نيونغي لين دي دي لين زيار دي لين واتي سن واتي واي دي نوي سونو سيرن بو باخ بي تي تو امد سيرن بابا كير سيمون اك مبولم جابوتو مام شيخ سيدي الحاج مالك رك نيونغي لي نوي بو باخ باخ باخ باخ دي nuyu téléspectateurs yi safoo seen émission jamonoy tey soxna Aïda di la delloo nuyu bi nuyu Chérif Cissé di nuyu suñuy invité macha allah taala ñu ngi lay fay bu baax a baax yaa Sida ba tax na rek ma jubal ci maam Xadi maam Xadi Diop maa ngi lay ziar di la dalal ci Malikia TV leeru Maodo macha allah delloo ziar auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim

Kër Maodo ma tourné ci oustaz Ahmed Fall oustaz maa ngi lay nuyu bu baax. waaleykum salaam wa rahmatulah soxna Aida. maa ngi lay ziar maa ngi lay fay bu baax a baax. bismillahi rahmaani rahim. rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu. di jiital ci nuyoo bi soxna Aida. ak Serif Cissé. di nuyu yaa Sayda ak Soxna Xadi di ñaan yàlla yàlla defal ñu jàmm. di nuyu mbokk jullit yëpp yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan. Mm-hmm. ak fu ñu mën nekk ci àdduna bi. Mm-hmm. di ñaan yàlla yàlla defal ñu jàmm. Mm-hmm. yàlla defal ñu wér. yàlla defal ñu najaax. ak sutura. وعليكم السلام ورحمه الله وعليكم السلام استاذ سمت يو تام نغي دالال في تي مالكيه تي في له موضوع دي نوي اوسي جانتال مارا ميغا خامتاني تاي تاو في دي نوي اوسي مام خليفه سيخ نغي لين دي جاجيفال فوف تي دوان مور اك احمد حالي محمد حالي اوسي نينكو نوي بو باخا باخ دي نوي جانتال مارا تي شريف سما خالد بي ويتال نوا اوكي نوي بو باخا باخ كوك دي جانتال مارا با تخنا ريك سيمين باسي نيغي دون واختاني لولو ني نان توغ ني ديف كو تيم دو لندي بو جودي تاي نك ني waxtaanee néegu sëy néegu sëy nag bu ñu koy waxtaanee dafa nekk actualité dafa nekk au diapason comme ni ñu koy waxee parce que boo gisee teq-teq yi nga xamante ne am na ci biir néegu sëy yi ba tax na dafa yaatu nag tey nag dañ ko war a développer fii ci jamonoy tey balaa may tas kàddu gi comme d'habitude rek ma jox Chérif Cissé mu développer ko ma tas kàddu gi ci plateau bi. waaw jërëjëf soxna da bunt bu nu ubbi semaine bi incha allah euh, muy néegu sëy euh, néeg ma ñu wax néegu sëy dafa <laughs> Buntu bu yema la bu and ak jamono. Mhm. bo xamni wax deug yalla euh waxtane ko euh, weesu non ko sax. Mhm. dañ ci tollu te duñ ko mën bayyi euh jot nañ nak waxtan li nga xamni moy mooy sey su plateau jamono tay mhm. ndax waxtan nañ fi labatu demb ak euh, euh, demb ak tay jot nañ fi waxtan yeb sey nga xamni nit ki bala muy dugg ci sey nak lañ koy yebé waxtaan nañ sax euh, euh, euh, tas sëy mhm. mais duggagunu woon si néegu sëy mhm. luñ fi jotee waxtaan buñ ko mënoon tënk pour ñu mën a xam lu si biir lu si biir foog ñu xam la nekkoon si biti mhm. dañuy fas faral di wax ni la tas sëy fëggoon na su labat gi ñu ñu ñu tànqam lu ko moo tax itam bu duggee si biir day yàq lu bare wante daal lu ñu doon mën a jàpp su sëy daal Euh, su yëpp bu ñu doon waxtaanee si biir sëy nga xam ni balaa ngay dugg dañ la koy waajal. Mm-hmm. Euh, dafa mel ne léegi nit ñi ñu ngi dawal oto te jàng ñu de la route. Mm-hmm. ndax sëy moom euh, boo xoolee diine la. Mm-hmm. sunu borom moo ko santaane pas-pas bi nga xam ne yàlla moo ko def diggante góor ak jigéen. bu ko neexoon mu bind doomu aadama yi comme nu muy bindee malaaka yi. nga xam ne du am papa du am yaay duñu seq sax bay bay mottalante mais dafa bind su coobareem ak su bëgg-bëggam. góor. ak jigéen muy ànd su anam yi nga xam ni noonu la ko tërale mag ñi nag nu ko tënkee daal mhm. euh, maam sëñ Tuubaa dafa ni euh, waaye dencante ñett la ku góor ki na bëgg ku jigéen ki bëgg mhm. mbokk yi ànd si mhm. moo tax sëy bi du neex te yàgg am na ponk sëy comme nu wax duñ ko waxtaane woon rek ni cen geeg seede geeg kilifteef geeg ak waaye dencante yi du ñu nangu loolu waxoon nañ ko waxoon nañu yëpp ko wax yeb yeb bu nga xam ni Seydi Hadj Malick yebe woon na ko soxna Fatimata mhm. ni ko boo demee loo fay def mu ni du ma ma balaa may génn tàggoo mhm. euh, lun balaa ma lun ma tere ma bàyyi lun ma sant ma def ba mënu ko matoo ndax fooy dem bay tàggoo mhm. looy xaar ban sant la nga def Euh, euh, looy xaar it euh, looy def ban la koy tere. Mhm. nga xam ni mag ñi waajaloon nit ki balaa muy dugg. ndax say combat la. Mhm. combat nag da ngay am jumtukaay. Mhm. da ngay am cumbukaay. ñi nga xam ne dañ lay entraîner waajal la. wax la li nga xam ne pour boo si duggee am si ndam. lu si am ndam nag mooy nga dugg si muñ si. ba yàlla jox la si njaboot gu barkeel. waxoon nañ nag itam ñaar daal moo ko kile pour mhm. pour euh, tënk daal euh, ni sëy góor ak jigéen mhm. dafa mel na euh, njiw bu jiw bu baax mhm. nga fekk suuf si nangu nga ji ko si muñ gi ak yëpp mooy soxat kii bi boo leen amee nag mbay bu naat mooy doom yi nga xam ni ba judd nañu baax nañu barkeel noog si yoonu diine lislaam su gàrtal daal bu ndey ba si biir na ñoom yaay Seyda ak ñoom daan wax ni eh, néegu sëy ak ñoom soxna Xade kii lan nekk si biir néeg <coughs> dëgg la jaajëf Chérif ñu ngi lay jaajëfal bu baax yaa Seyda gis nga temps yi moom dañ naan challenge challenge sax laa ko mën tuddee ndax <laughs> da ngay dugg génn maanaam da ngay dem yër rek boo bu neexul nga génnaa dem <laughs> man daal pour man sama gis-gis léegi challenge la en fait am naa jëkkër matu trois mois sëy ba tas xale daal dañ mel dañ koy fawee wallaay nday mhm. ndeysaan xanaa euh, dañu war a bàyyi xel rek ni sëy jaamu yàlla la mhm. Euh, mm-hmm. du loo xamante ne da ciy dugg rek génn. loo xamante ne da nga yërndu mu neex la nga toog neexu la nga daal di génn. Mm-hmm. Euh, soxna Ayda lu ci nekk rek boo koy def na ci sédd sa borom bi subhaanahu wa ndax boo gisee aaya bi nga xamante ne moom la ñuy takkee say sax. ma ngay wax ca aaya ba ci biir aaya bi ne wattaqullaha allazi euh, bihi war arham inna allaha kaana alaykum raqiba ma mm-hmm. sha allahu taala xam nga euh, yàlla subhaanahu wa nee na na ngeen ragal mm-hmm. na ngeen ma ragal bu baax a baax a baax te ragal gi ngeen may ragal nangeen bàyyi xel ci ni ngeen koy defee mm-hmm. te xam ne bu ëllëgee ku ci nekk dinaa la laaj seen diggante yéen ñaar ak ni ngeen bokkee woon bay sëy mm-hmm. ak ni ngeen àndandoo yoon ak ni ngeen doon def ba sëy boobu ma teg ko ci seen loxo. Mhm. te bu ëllëgee dinaa lañ ko laaj ngeen tegaat ko ci sama loxo. Mhm. kon nañu bàyyi xel loolu bu baax a baax a baax ndax man maa leen gën a jege sama buumi xol. kon lépp lu waaye def rek nag ci sédd borom bi subhaanahu wa taala. Mhm. te xam ne moo la gën a jege sa buumu xol. ndax yàlla laa tax taxuzuhu sinnatun wala noomul lahu yàlla nelawul bay dajantu. yàlla gëmmentuwul kon lu waaye di def na nga ci bàyyi xel sa borom bi subhaanahu wa soxna Ayda nga sëy. dafa nekk loo xamante ne dafa ànd ak dafa am lu ëmb lu bari ci biir lu ëmb lu ko ëmb nit bu fekkente ne yàlla dafa dogal mu toog di ñaan yàlla ndax ku nekk soo sooy dund ci kaw suuf dangaa ñaan sa lépp baax boo ñaanee yàlla sëy moo xam muy góor wala muy jigéen ba yàlla dugal la ca yàlla lim la ci wax yépp ci sutura ci euh, discret ci euh, jàmm ci euh, ni nga ko war a defee ba nga xamante ne bu ëllëgee dina kontaan ci yow ndax kat lu waay leble rek dañ la koy fay ndax la woykat ba ne sëy xare la boo ci juree doom jam nañ la saa yoo juree doom rek mhm. war ngaa mën a xam doom boobu yow mhm. nan lay mel mhm. yow yaa koy njëkk xam yow mi ko jur waxantuma laa nag ñi ci biti ndax loolooy message u sëy sëy am doom léegi nag ñi ngi suivre sa doom ba xam nan la war a mel mhm. ni mu mel rek noonu nga doon sëy ci sa biir néeg mhm. kon sëy benn sutura boo xamante ne yàlla daf ko dogal dane man kat dogal naa sëy ci yéen mu nekk pour ngeen jaamoo ma ko mhm. dogal naa it teqalikoo waaye nag teqalikoo boobu ma dogal nag bugguma ko sax bu ma sañoon da ngeen ciy toog ba ëllëg mu nekk jaamu yàlla bi ngeen ma war a jaamoo mhm. ba bu ëllëgee ngeen ñëw ma jox leen seen payoor allah kon macha allahu taala da mhm. képp kuy sëy na bàyyi xel loolu mhm. ndax sëy jaamu yàlla benn neexul julli metti na woor metti na génne azaka macha allahu taala alal ci xol la sax dem màkka tabarkàlla gis nga yéen fay dégg naan màkkaa metti kon amul looy dugg ngir yàlla rek muy neex kon buñ ci xasee ba dugg ah nañ ci toog rek te xam ne jaamu yàlla la su suñu yàlla fayulee fii itam bu ñu demee ëllëg mu jox ñu aljana ndax aljana la ñuy wër ñun ñëpp masha allahu taala jërëjëf yaa Seyda mm-hmm. euh, soxna Xadi dégg nga li yaa Seyda wax néegu sëy mm-hmm. comme ni ma ko waxee rek dëkk bi moom xam nga dafa jax waaw damay rebondiraat ci li mu mujjee wax rek mooy que ni mm-hmm. aljana la ñuy ut mais malheureusement est-ce que xale yi xalaat nañu euh, aljana dëgg la parce que am na yoo xamante ni yaa ngi koy gis tey ci internet bi sax moo tax ñuy wax parce que tey bu dëkk bi yàqoo tey internet bee tax gën a tax est-ce que ñoom li ngi xalaat yàlla est-ce que ñoom ñu ngi xalaat suba te li ma gis léegi ci xale yi mooy que ni dañuy tiitaroo say ñetti weer divorcé say at dañ koy defee benn ñaareel ba mhm. est-ce que amate nañ léegi temps wu ñu takk leen ba pare ñu toog seen papa yi toog kilifa yi toog ñu di leen wedd euh, yedd mhm.

ana yu baax baax yi ñu daan def ana li nga xamante ne moo fi loolu la fi mag ñi bàyyi woon aada yi ak cosaan yi nga xam ne cëslaay la ci sëy moo daan tax moo daan sauver sëy mhm. salaamaaleykum maaleykum salaam takk nañ la dem nga dem domeel ñëw nga fan ngay wàcc appartement mhm. ana papa ana yaay yi ñu daan bàyyi ci kër nga xam ne tey jii bu tëjee ba xaaji guddi mbir am nga xuloog sa kër kii euh, euh, moom moo lay woo dalal la mhm. di nga rus def yenn yi wala nga wax yenn yi waaye ngeen tëj ci appartement ñan ñoo leen di atelier gi

Euh, fi xadi euh, daanele foofu laay jële mm. nee na ani repère yi ani kilifa yi ñi nga xamante ni euh, dañ daan wax rek nit ñi exécuté mais léegi dafa mel ne léegi xale yi seen kilifa bopp lañ waaw waaw soxna Aïda mm-hmm. doguma la fi ngeen commencé mm-hmm. Serif commencé fi Seyda jaar fi daanaka foofu laay tàmbalee te mooy sëy d'abord nañ gëm ni jaamu yàlla jaamu yàlla nag du yomb ndax léegi li xew mooy takk nañ sëy trois mois am na ñoo xam sax un mois ñu tas nañ. am na trois jours léegi. li ko waral nag mooy <clears throat> fi l'islam tracé woon foofu lañu bàcc mhm. mooy ceeg commencement ba. mag ñi daan nañ ko xool ndax daje ci mbedd mi. ku nekk jox sa jox sa morom téléphone. Mhm. ñu wootante. Mhm. fas seen ngoro. Mhm. mag ñi fekk leen ca duñ am lu ñu bëgg. dëgg la. lislaam li mu santaane woon. waajur yi na xoolal doomam soxna. yaay ji tamit na xoolal doomam borom kër. ndax yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ni. bu ngeen di jël soxna na ngeen jël boroom diine. di ko jël pour ñeenti yëf waaye tànn leen bu doon diine ak borom jikko. dëgg la bu ko jëlee sa affaire baax. Mhm. ñu yaakaar ne ku jigéen ki rek la wax nañ ko xool mu ni déedéet sikk mën naa nekk ci ku jigéen sikk timitam mën naa nekk ci ku kon di sa doom bi nga ci kër gi timitam mhm. na nga xool xool ñaar bu amee nag ñu boole fas say bi mhm. ñu xam ni ñii li ñuy def nekkul lu tuuti. dëgg la. Mm-hmm. yaa Seyda junj na ko léegi. Mm-hmm. yàlla neen bi ngeen ko fasee ba pare mu ni wattaqullaha alladi tasaaluuna bihi wal arham li nga xam ne moo leen fi dajale muy sëy bi takk ngeen ko ba pare mm-hmm. ragal leen ci yàlla mbokk gi nga xam ne am na tamitam ci ñaari yi ndax mbokk dugg na ndax gor gorwante dugg na ndono dugg na mu ni neen ci ragal yàlla mm-hmm. mel na suñu borom dañ ñu ko foofu rek doon mu ni déedéet mu ni inna allaha kaana aleykum raqiba man seen borom de maa ngi leen di surveiller maa ngi leen di fuglu mm-hmm. di xool ba xam nag ngeen war a doxale ci say boobu mm-hmm. léegi nag sëyit lu ñu war a jàng la bu jëkk yaay dafa amoon temps dund ak doomam di jëf muy gis muy li muy daj ci kër papam ci muñ. wallaahi. bu woddoo mu ni ko li nga woddoo baaxul. Mhm. bu solo mu ne ko li nga solo baaxul. Mhm. soo waxee sax mu ne ko sa communication bi nga def baaxul. même doxin bi sax dañ ko daan xool. dañ ko daan xool doxin bi muy dugg si di ñëw sax dañ ko daan xool. éducation boobu des na. Mhm. góor ñi timitam léegi da ngay ko naan man sama doom dama koy bàyyi rek lu ma indi ma ànd ca ak moom. déedéet boo gisee. l'islam indi sëy mu indi ci kilifa indi wu ko pour asar amul benn sëy bu ñu war a takk te amul kilifa ndax dañoo bëgg sëy bu bés bu amee problème kilifa yi lijjanti ko léegi nag sëyu léegi amatul kilifa juñ gën ko léegi xale yi bu ñu takkante appartement la ñu dem ku am problème sa sa xarit ngay woo bu ñuy xeex gardien ñoo leen di atte mm-hmm. kon léegi la doon cëslaan ñu sëy dañ koo daal di sànni fële. Hmm. ndax sëy jaamu yàlla la. Hmm. sañoo di julli ba mu yàgg rek nga dagg julli nga dem sa yoon. Hmm. soo ko defee am nga bàkkaar. sañoo di woor ba mu yàgg rek nga xëy ni man daal damaa sonn dagg koor gi. soo ko defee lislaam dalaa teg ay daan. wa kadalika tamit sëy noonu la mel. kon fokk ñu jàngalaat nit ñi. waree fi sëy mhm. jàngal ko ku góor ki jàngal ko ku jigéen ki léegi léegi nag ñun senegal sunu maam El Hadj Mag daan wax ni aada moo fi man mhm. Mhm. diine dañuy topp aada ji ba bàyyi diine gis nga fa ñu takk sëy ba lañ fay wax ci diine ak ndénkaay yi ñu fay waxee ña ko dund duñ ko fekkee bu dee ndaw si moom dem na salon bu dee ku góor gi mag ci ay xaritam ah, كن لاجي كن كن لاجي جك كن خمول كن لاجي جك كن خمول بالله كن فوق ندلوا تدينه دلوا تميتم تدينه تقولون خال ننجان ياره نخيال دفع وقت القرآن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم بني سد لو 2023 بي 2022 لي في تاس تي سي كان موكو واخ nga dem 1971 wala 1981 day la ni yàlla ak yàlla yi mm-hmm. kon fokk ñu dellu ci yaru démb mm-hmm. doo ko mën a defaraat sëy kon ma daal sama wax ci gàtt daal mm-hmm. mooy fokk ñu xoolaat ensegnement bi yar yu nuy dëgg la ak njàngale mi. Mhm. loolu moo des. man li ma jaaxal mooy ba proverbe boobu ñëwee ba léegi njaboot njabootu xaw ma njabootu kanaara la. Mhm. dangay jiitu ñu dellu si ginnaaw loolu laa mun. moo tax dëkk moo tax dëkk bi toj. Mhm. pour sama gis-gis ay njabootu kanaara laak da jiitu ñu topp seen ginnaaw pour lan. waaw xam nga ah pour lan loolu. mag ñi ñoo ko doon wax. boo seetee kanaara bu jiitoo. doom yi dañ ciy topp rang. dañuy njabootu démb njabootu kanaara la. kilifa gi mooy jiitu. do mi top rang dañuy rang da nga ni loolu dafay jaxal sax dañuy toppalante léegi nak ñun léegi njabootu ganar la cuuci ñoo jitu yaa ji sen seen cuuci yor yor moonu bi cuuci lu for ya ji ñëw for leen ko cuuc bi cuuci yor moonu bi loolu lanu bënu mën wax mais soxna Aida lepp loy dugg na nga xam la ngay dugg moy lan ba pare deug la lan moy sey bu fekke sa bakkan nga ci top jamm yalla may ñu la nga ci dugg du ci top sa bakkan dafa am su ay charte yu ñu ko teg hmm. su ay règlement yu ñu ko teg hmm. euh, man sama jigéen ñi bu daan problème du am dan ma daan woo mën leen sëy moom ñett si am euh, yaa xam la la si dugal la la si téye yaa ko xam la la si génne itam yaa ko xam hmm. te waaye dencante dafa xat léeg-léeg bu fekkee da nga si àtte te amoo xel ndax la gën a naqat yi duñ ko nettali la gën a neex duñ ko nettali la nit ñi mën a dégg rek la ñuy wax. bokk na su diggante googu nag euh, comme nu euh, oustaz waxee. kilifa daf si am solo. Euh, maman Khady wax na ko. ni ko jigéen ñi bëgguñu àjjana. mais balaa ngay bëgg àjjana dangay xam ni yow jaamu yàlla nga koy def. ndax jigéen nu ko yàlla rëddale àjjana rëddalewu ko loolu góor. ndax am na nu ko suñu borom waxee. ni ko jigéen ñeent mu ngi nii na nga julli. na nga wor mhm. na nga sam sa bop mhm. nga sak su ngeureumal jeuker mo war loolu àjjana oustaz mo joomé nga mhm. gàgganti ma non la am eh, amna itam comme nuñ wax des fois fo départ ngay def ba ngay tan ndax yonent bi wax na la noy tànne sallallahu alayhi wasallam ñent yi mo waxon rek tar borom alal ak ku bok sa askan bu baax ak ku am diine ñet yu jitu bu amulee diine mom bu mu ci ñak ndax euh, ku dugg ci seyt amo dafa mel ne oto bu amul frein. fa nga war a taxaw doo fa taxaw. Mhm. te boo gisee la sa kanam di nga ko mbëkk yàq la sa kanam yàq sa oto euh, gaañ sa bopp. loolu nag war na ni mag ñi delloo si waat la la lan daan muñe démb. Mhm. lu maam sëñ Tuubaa doon yebee soxna Penda Diop. benn taalibeem bi nga xam ne dañ ko doon may bàyyam bu ndaw. Mhm. lu mu ko si njëkk wax mooy na nga ragal yàlla su biir ak su biti. te nga muñ. yebe googu lan la daan yeb. yow jigéen bul tontu. bul werante bul dàgg sante hmm. bul jàmbarloo bul tongo bul jéngu hmm. na am itte hmm. am ajo am kersa muñ lu ko euh, Seydi Hadji Malick doon wax dëgg kalang def balaa ñu laa sant bàyyi balaa ñu laa tere bañ a dem fenn ba doo tàggoo te waaye dencante waaye diggante boobu itam il faut ku nekk xam lan mooy sa àq Gur day rafetal buy genn day taggu jabar day yëgal jabaram mhm. parce que war nga boy dem Touba ngeen ko maangi dem Touba mhm. daf ko yëgal amul obligation tàgg ko mais day rafetal ndax euh, rafetal daf bok ci din leen mais yow muy jigen boy dem boutique ba da ngay taggu sa jëkkër taggu ak yëgal dafa nuro te te te te wute mhm. yoy nak lanu lañu xamatul légui su bir sey xalé itam day am ñet da ngay gis gor go xamni matul euh, légui wut jabar wuurul booy wut na nga soxna. manam ku ku meuna tok item su togay ci góor ñi itam meun ñu yoré soxna. góor léegi man man ma su ñom yërmande lu mam seigne touba doon wax ni bo bëggee soxna da nga leen du mënal kon war ngaa góorgóorlu ba mën dara. ba kay mënal sa morom da ngay yërëm da ngay jël jéggalé du jëlalé du muñal. donc jikko bo xolé day commencé. su euh négu biir. jikko yi daf si am daf si am lu mu siy defar. Mm-hmm. wala am lu mu si yàq. dëgg la te lu mag ñi doon wax jikko mooy noonu borom. dëgg la c'est que sëy yu bari léegi naxante la. Mm-hmm. naxante la xale yi mënu si ku góor ki ko si ku si jigéen maslaak naxante la parce que mën nga tàmbal bi ngeen di génn yéen ñaar mm-hmm. wala ngeen nekk yéen ñaar parce que comme léegi looloo xew uh-huh. ku góor ki tàmbal ku jigéen ki lu nga xam te ne xam na ni lii du woy wallaahi parce que moom bëgg na dara looloo tax muy def dara. mais mm-hmm. bu ñu demee ba nga xamante ne nag takk nañ leen ba ñu dawal ay deux mois 3 mois li nga xam ne daaw ko gis ci ku góor ki. Mm-hmm. yi problème yu commencé. waaw góor jigéen doguma la. Mm-hmm. waa am na góor ñu mën ngoro. mais mën ñu téye mën ñu téye voilà c'est ça ngoro gi day neex. dëgg la wallaay xam nga bu yàgg ba da nga daan ñëw di labat. wala nga ñëw ñu ñoom deret lañ daan xool ak noblicité. ak fa nga nekk. bu yàgg ba mag ñi loolu lañ daan xool mhm. léegi nit ñi li ñuy xool ñu baal ma sax mooy lan ngay def lan ngay liggéey xanaa xamoo nit am na lu tuuti ja téye téye soxnaam nit am lu ñu gaañ du defal dara soxnaam nekk sàmba allah di ko def mhm. ci mbedd bi wallaay eh, moo tax ki gën yàlla rek a xam wallaay wallaay soxna ay da lépp yar la rek mhm. moo tax eh, yar sa njaboot lu am solo la gis nga nit day dimbali boppam ndax eh, bu fekkente ne dangaa bayal boyal njaboot gi lu leen neex def lu leen neex ñu wax fu leen neex ñu dem yow mi nga xamante ne yaay kilifa gi jéemoo am benn euh, posé boo xamante ne yow mhm. toog nga ko di di di di di saytu sa njaboot mhm. di xool ci lu ñu nekk lu dul yaa ngi topp àdduna bi surtout euh, sama mbokk jigéen yi loolu dañ cee war a veiller bu baax a baax mhm. gis nga doomu jigéen yi dañ cee war a veiller dañ leen a war a dimbali parce gis nga Euh, soxna Ayda di nga gis euh, xam nga ñu ngi naan yowmal xiyaamati di nga gis euh, jur bu dem bay dugg doom ja xëcc bu bu am ni ko kaay. Mhm. fay ma sama àq ndax ba ñu nekkee ci àdduna tak am na noo taxe woon. Mhm. waaye balaa boobu fii lay commencé. wallaay ndax lii léeg nga gis way doom joo xamante ne. Mhm. day mere waajuram da koy mere. parce que danaan li lii li gën a doy waar mooy nga am doom. tuddewoo ko tur boo xamante ne dafa nekk tur bu rafet boo xamante ne ñëpp dañ ko ci nawloo man am na sama copine bu ma mës a wax loolu ni ma sama papa xaw naa ko mere ci sama tur bi ba sama tur bi man dama koy soppi sax mm-hmm. ndax nii ma ma tuddee man bugguma ko moo tax loolu lu am solo la mm-hmm. il faut waajur it ñoo mën a taxawaat muy góor muy jigéen surtout jigéen ñi mm-hmm. jigéen ñi nga xamante ne ñooy des ca kër ga ñoom la yàlla dénk ñu doon koo xamante ne dafay yar mm-hmm. wala yar njaboot gi warloon a teg ci yoon parce que gis nga ay Aïda mm-hmm. gis nga doom boo ko yaree yow lay noppal mm-hmm. yow rek lay noppal waaye boo bay bayee lay bàyyi ko boyal ko lu ko neex mu def yow dong lay sonnal yow lay sonal ndax uh, fii da ngay gis way jur yu mere uh, doom yu mere seeni way jur ndax duñ leen jàppale ci dara. moo tax gis nga taxawaay dafa baax euh, jigéen ñi foog ñu defaruwaat foog ñu defaruwaat. Mm-hmm. yaraat seen bopp ndax sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum. Mm-hmm. radiyallahu anhu day wax ni buñ la yarulee boyal la. Mm-hmm. ba nga dem ba gis dëkk bi ni muy doxee mhm. gis nit ñu baax ñi di dem fu baax mhm. di ànd ak ñu baax ñi demal nga roy leen nga toog sa ruq manukan mhm. nga ne man kat lii may def de baaxul ndax lii ma nekk day jaaduwul naa defar nag ndax samay nawle ñoo fi nekk te ni dafay bëgg lu baax il faut ñu jàppalewaat xale yi woo leen wax leen seen démb ni leen seen démb sëy nii la demee woon ndax euh, man mii nekk sa way jur keroog biñ may dugal ci néegu sëy ci pantere lañ ma dugal awma ma sax euh, lal mat laa lañ ma teg mhm. te mag ñu noonu lañ daan def dañ lay teg ci mat laa loolu yàlla dogal wërsëg bi di ñëw tey borom immeuble yi nga fiy gis mhm. mais ci pantere lañ duggoon ak ndësam ci ay lalu ndëstan mat laa lañ leen tego tegaloon mhm. wala ñu tegal leen pajaas wala ñu dugal leen ci néegu ñax il faut ñuy wax xale yi démb bañu bàyyi daal di bàyyi copie bi mhm. gis nga lu ñu del copie doo nga ñu ko teg bayal sa doom ni tubaab la mhm. léeg nga gis koo xamante ne sax ma ngay dëkk lu mel ni sugeer suñu dëkk ñëw Ndakaar rek doom yi dootuñu dégg olof boo waxee mu ne non non non kenn day ñëw sax nga naan mu naan la waaye yow nga naan ko di làkk ay tubaab yoo xamante ne mais di roy mais roy pour lan mhm. ah, li ngay roy nga xamante ne daf lay daf lay lor mhm. neewuñu la bul jàngal sa doom tubaab mhm. neewuñu la bul jàngal sa doom nasaraan waaye nag na jiitu ci moom ndax euh, maam Cheikh Sidi El Hadj Malick radiallahu taala anhu keroog biñ ko laaje maam Sidi Ahmed si ni ko dafa war a bokk ci ñiy dem guerre ba dani leen mën naa dem bañ ko laajee njabootam dañ koo laaj ni ko ku ñu yóbbu ca guerre ba ñu ne taalu yi nañu dem mu ne benn taalu taalibe du dem sama doomu boppu na dem ndax kii dama leen jiitu ci moom macha allah taala ba mu demee lam fa defar ci ay nit mooy sama macha allah taala amul lu mu defarul foofu ci wàllu diine tuubal tubaab yi mm-hmm. ba naasiril xaq bil xaq boo demee France di fa dégg zow ba di ko fa dégg mu di fa jolli xam nga loolu mooy lan mm-hmm. préparer sa njaboot. teg ko ci yoonu siraatal mustaqim dimbali ko ba bu ëllëgee fu mu dem bu ëllëgee yomal xiyam du la poñe loolu lu dara bàyyi xel la macha allah valeur yi ci boppam euh, soxna Khady moom la ñu mm-hmm. perdre au fait mm-hmm. dañu am benn richesse bu nga xamante ni ñun Sénégal ñun rek ñun ñoo ko fi am mais xale yi ñoo amatul valeur mm-hmm. ñoo xamatul lan mooy seen valeur ba pare amatuñu royukaay amatuñu kenn ku nga xamante ni moom la ñuy guus sax amatul dafa jeex repère amatul jeex na jeex na jeex na tàkk wax dëgg yàlla ñun mag ñi sax ñu ngi laajte fan la dugg fan la nekk mhm. parce que da xool léegi xale yi seen yaay yi amatuñu seen temps mère yee la gën a bëgg tiktok de fuuf wallaahi <laughs> fuuf mais <laughs> jamul la gën a xam ne temps bi di mbalax day la ko wax amatuñu jotu kenn mais dugal ci kër da fekk mère bi téye téléphone am papa ji téye téléphone mais xale boobu kan moo koy jubbanti ah li ñu naan boo euh, boo tëjee sa doom bu tëddee nga tëj bunt mm. tëj parenteer mais ubbi nga beneen bunt parce que bàyyi nga kak téléphone mm-hmm. te téléphone boobu nga ko bàyyi pourtant moo gën a graaw mm-hmm. xale yi li ñuy def man démb rek am na ko ma woo naan ma sama doom da doon wax ak sama téléphone te moom nee na moom danoon wax ak téléphone am waaw téléphone papa ji la jël di wax ak téléphone muy wax téléphone bi di ko tontu maanaam mu ne ma fan la dugg man ko xam naa dafa dugg <laughs> mode de robot xale yi li ñuy def ci téléphone doy na waar kenn waxatul loolu dañ ko xam dañ ko xam ak ñoo ko métti voilà mi ngi noonu léegi ñàkk kilifa gi laay bëgg a si tuuti mm-hmm. soo gisee xale yi lu ci bëri tey jii ku ci xuloo doo dem sa kër yaay doo dem sa kër papa sa yaay mayow la sa papa mayow mm-hmm. ñu seen doom yi ci seen bopp mm-hmm. bat sax gis nga léegi ñi ñu fiy takk sey ñuy woo sa yaay wala sa papa te du gis nga papa yaa ma neexee ak bëri. ak dijaayu yaama ak di luy dafa bëri. ak uh, luy imaam yi. dañ <laughs> nga sol garam bu na jog jogaram araam te faatiya bu egg sax mënoo ko waaye day naa luwee ñëw <laughs> ah waaye yow léegi yow bu fekkee da am problème tey jow ci sëy boobu ci kan mm-hmm. ngay dem sa ngaa woo yaay ñu ngi nëbb seen yaay yi mm-hmm. ñi seen yaay teg taabal lañ koy nëbb nee naa leen uh, uh, ndakaaru dematuñu seen dëkk yi xam nga leen ñu pentu seen dëkk yi mhm. bu dëj amee mu leen seen xarit dañ leen war a seet si foofu pour jaale si leen wala xew am fa bu dañuy dem par force mhm. ci la ñuy seen dëkk yi ay complexe lañu pour man pour man yenn yi complexe lañu bëgg jël tubaab bi instauré ko suñu bopp forcé ko suñu bopp mais pour lan la xam nañu delluwaat démb. en plus dama ne tubaab bi ñuy nekk fi di ko jàngal nit ñi pourquoi pas du ñu def ay école yoo xamante dañuy jàngal euh, xale yi ñun ñooy ñan fan lañ jógee suñu maam yi. Mm-hmm. loolu tam manqué na Sénégal. vraiment daan def euh, Chérif loolu ñu poètes yi daan def. Mm-hmm. réunir les enfants. xam nga mm-hmm. jël euh, di leen jàngal lecture. ay lépp ay yi. lañ daan yare xale yi. lépp jàngat la voilà voilà ñoom ci lépp yi lañ yi. compte yi nga xamante ne daan nañ ko def si lañ daan yare xale yi. bukki ak lëg ak voilà ñoom mam yax yàlla yu ñu fi daan def portable amul mm-hmm. boobu portable amul mm-hmm. ah, nga ko daan seetaan daawoo ko seetaan lu bari mm-hmm. donc de ce fait mag ñi ñoo daan réunir xale yi di defal ay ay ay poème di leen wax li ak mais ci biir poème bi toujours dañ ciy tirer leçon effectivement léegi nag loolu moo amatul amatul parce que léegi xale boo gis léegi si téléphone bi rek lay jàng lu ko jaaxal ubbi na Google lu ko jaaxal Google lay ubbi. nekk ci suba ba ngoon guddi ak bëccëg. da ngay dem ci benn famille comme ni ko soxna Xadi waxee. ba salaamaaleykum sax duñ la parce que da ngay gis kii toog fii kii toog communication sax dafa amatul. moo tax problème yu bëri léegi di am ci biir famille yi oustaz waaw. xam nga soxna Aida. Mhm. li ko waral lépp mooy li ma waxoon ci commencement ba rek. Mhm. mooy li ñu waroon a jiital la ñu féetal gannaaw. Mhm. muy lislaam boo xoolee sëyu tey li ko yàq mooy dañuy jiitale intérêt. mën nañ ni sëy bu tas quatre vingt pour cent bi moo ko tas. Mhm. ak ñàkk kilifteef te sëy dafa am ay ay ay àq yoo xam ne ku nekk da ko amel sa borom. sa mhm. morom mhm. bi ci jëkk mooy ku ci nekk moo xam ku jigéen ki la moo xam ku góor ki li la war mooy nga dox ci loo xam ni dafay day tax nga am ngërëmal ki nga nekkal. ku jigéen ki premier point mooy day am day bu xëyee rek na nekk ci loo xam ne day tax mu am ngërëmal borom këram. borom këram moom itam heure bu xëyee na dox ci loo xam ne ci lay amee ngërëmal soxnaam. ndax pour nga nekk góor gi nga xam yaay góor gi gën. da nekk góor gi gën ci say soxna. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. nattuwaay bi foofu la ko nattoon. Mhm. loo baax baax ci mbedd mi say soxna.